depuis euh, deux jours avec euh, invitation monsieur le maire euh, avec initiative sous l'ordre ordre sunu nos directeurs, nous fa pour préparer journée mais avant cela nous ne dit bala nous ñëw rek def inauguration il faut nous commencer par le concret mooy déjà nous avons ñu ñu jël jeunes et des porteurs de projets des femmes ñu former leen si l'on a si wàllum entrepreneuriat donc si loolu euh, formé nañ def nañ deux jours d'activité de formation bo xamni intéressant wona na euh, parti euh, ñi fa nekkoon participants yi ki nañ bu baax liggéey nañ bu baax ak équipe bu ñu donc liggéey nañ ci module ni développement personnel nit nan ngay fonctionner ci ci que ce soit ci entrepreneuriat wala ci leneen mais nan nga mëna def pour yow nga découvrir li nga sa yenn mën-mën yi nga nga nga sa confiance en soi sa yenn qualité yi wala sa yenn atu yi nga xam loo xamante ne xëy na nit ñi xamuñu ko si yow wala yow mii sa xamagoo ko si yow fan ngay jaar pour découvrir loolu nga exploiter ko parce que ku ci nekk am na lu la yàlla may mais nag il faut nga exploiter ko ak tamit boo xamee loolu ba pare nga am objectif si ci ci ci ci ci àdduna bi nga xam loo bëgg nga xam fi nga jëm donc nga démarcher pour am loolu après cela euh, ñu tra liggéey nañ ci entrepreneuriat ak lo xamantene ay module yu xawa technique nak moy nu ñuy defaree benn projet projet bo xam képp ku bëgg financement il faut nga am ko pour nga mën ko djébal bailleur bu lay financer ci loolu lañ travaillé ak participants yi ñu travaillé ci ci deux jours yi ba ñu mujj am euh, juróomi projet yo xam ni ñi fi nekkoon participant ñoom ak ñun ñoo ci travaillé euh, ñu paré ci proposition yooyu te décider ko jébbal monsieur le maire

ci métier yu bari manam ñen ñi dañ leen di jël yóbbu leen ci stade yi ñii ñu jël leen yóbbu leen ci sadef ci ñi ñu jël leen yóbbu leen ci direction aux et forêts ñii ñu jël leen yóbbu leen ci UCG qui est devenu sonaget ñeneen ñi ñu jël leen yóbbu leen ci santé ñi ci tourisme ñi service civique national donc non lañ ko tënkee ba répartir 65000 emplois peut-être li nga xamanteni waxuma ko won sank te mo war ko préciser moy recrutement bobu amu ci benn recrutement bo xamanteni au niveau national la am parce que biñuy répartir 65000 emplois département bu ne dañ ni lan moy population active manam ñan ñoy ñu mat a liggéey ñu jël population active bobu ñu diviser ko par quota bi ñu wara répartir pour am département bi pour respecter équité ñaata emploi mo fay génné donc lolu tableau bobu la suivre ba paré ci biir département bi comme day am ay communes ñu ni éventuellement dañuy génné ben patch bu ñu woowee correction territoriale correction territoriale bobu bokk na ci li ñek di dérouler mooy bu ñëwé ci ben département département de Kaolack ñu gis ni commune de Latmingué gi jotul gis bopam ci seddale bi ñu jotoon def ci département bi bu boba njiitu réew mi dañu dañ koy corriger commune bu ne dafa wara am ñu fa jël jëlale ci xëyu ndaw ñi donc 14150 150 emplois yooyu dañ koy répartiraat jël fi Latmingué jël fii Kër ba jël fi et cetera pour que équité bi réellement mëna am lolu xalaatu njiitu réew mi la parce que liñ fi wax ni ci xëyu ndaw ñi mom la wara war dérouler ci mission locale bi ñu installé mom lañ wara dérouler ci mission bi nga xamanteni ni yamul rek ci commune Latmingué mais day couvrir yenen commune yi nek ci biir arrondissement bi yépp donc ñu respecter équité territoriale xamna lolu après dañ ci waxtaan ak maire yi ñu xol bu fekkenteni ni nii mën nañoo corriger lolu aussi dañ leen permettre ñu am yenen euh, euh ñu am yenen emploi ci xëy ndaw ñi convention état employeur aussi gis nañ ni signé nañ ko ak courriel yu am ay potentialité pour recruter ci biir dëkk bi te loolu day continuer parce que buñ gisee ci biir dëkk bi ñu am possibilité ñu insérer leen te ñi fi nekk am ay entreprise wala ñu war ay ay femmes nekk mm-hmm. ay femmes transformatrices wala ñu war ay atelier ay menuisier et cetera mën a jël ay jeunes bu boobaa mën nañoo signer ak ñoom convention par contrat d'apprentissage ñu dugal jeunes yi nga xamante ne nii bëgg nañ ñu dugal leen ci kuréel yooyu nga xam danañ mën na liggéey bu weer ñu am dara li ñuy wax 72 heures de l'emploi mooy ñetti fan yoo xam ne dañ koo xaaj dajale fi ay ndawu commune bi ak yu arrondissement bu Koumbal pour laan pour tàggat leen ci ñu mun a am xëy ci d'abord ak boo amee xëyit noo koy téye rawatina sa xëyum bopp loolu di lu am solo ci juróom fukki ndaw waaye yemu ci téeméeri ndaw signé nañ fii li ñuy wax convention état employeur manaam directeur emploi moom moo xaatim ak ñoom kayit yoo nga xam ne dafa am lu mu leen di dàmp weer wu ne ci diir bu am solo pour lan pour bu dee ñi ci wut liggéey te am formation ñu mën a am xëy seen xëyum bopp ba mën a sos sax xëy pour ñeneen bu dee ñi nga xam ne amaguñu xëy dañ koo def pour jox leen euh, euh, matuwaay yu tax ñu mën a am xëy donc bu dee ñi nga xam ne dañuy wax emploi salarié la yi wut mooy liggéey ci nguur dina doon buntu pour ñu xamal leen fi mën a ame kon mission bi daal li ñuy wax léegi ci tubaab guichet unique moom la mooy benn bërëb boo nga xam ne boo dee ndaw wala ngay soxna ci arrondissement bu Koumbal ak arrondissement bu Ndiédiène muy juróom-ñaari communes yii. di Latmingué di caare Kër Bakka Ndofane Kër Socé Ndiédiène ak Ndiaffate bëgg formation boo fi ñëwee daañ la jubale daañ la xelal d'abord te daañ la jubale boole la ak kuréel yi nga xam ne ci nguur gi lañu bokk te tàggat nit ba mu war a mën a am liggéey mooy seen mission loolu dina yomban jot ga loolu dina yombal euh, suqali gox ya loolu dina yombal fare yi muy laaj rawatina ndaw ñi nga xam ne amuñu moyen fare yi muy laaj pour jot ci service yi dina tuuti.